naka noonu itam ñu ngi bu baax sëriñ Abdoulahi Jaxate mi xam ne moo fi toogoon ko ñaanal suñu borom yàggal ko moom itam te mën a ko kon bokk taalibe yi ba tey rek ñu dikkaat ak yéen ci jàngatu wala fay sëriñ Mbay Jaxate yi nga xam ne moom la ñuy def ci weeru koor bu sell bi nga xam ne daanaka mënees naa wax ni jeex na ba not ndax amaana bu dul tey jii mooy bés bu mujj kon suba lay doon incha allah rabbi ñu ñaan lépp loo xam ne jëfees na ko ci rek suñu nangu ñu bu baax a baax te daal di koy jotale dimbali si yàlla jooju ñoom di ma ñaan kon tey ñu jël ak wolofal woo xam ne li mu làmbool ci ak yërmande kenn xamul moom toll waaw di wolofal woo xam ne amaana sax euh, lu bare bare ci wolofal sëñ Mbay Jaxate ñaari duñ am tur ngir ca circonstance yaa nga xam ne moom la ko daan defee moom du ko sax daawu sax sàkkal ay tur nga xam ne nam ñëwee rek la koy daal di sottee ñaare daawul doon lu muy waaj waaye wala fal yi moom buñ doon wutal ak turam xam naa dañ naan mooy doon matlabul chifaani ndax amaana li nga xam ne noonu la Serigne Touba di jëlee suñu défense ñun jaam ñi mbaa ñun ñi nga xam ne amuñ dara ci kàttan fa kanam suñu borom noonu yi la ko sëñ Bay Jaxate di ko defeel muriti ci kanamu Serigne Touba te maanaam yu bëree bëri nag ci wala fal yu mel ni def na ko waaw lu mel ni loolee ñu daan génne wala fal woowu ñu daan génne ci jamono mbas mi waaye bi itam moom da ciy duggaale bu wér ndax maanaam lu ñuy wax dañuy dañoo layal waaye euh, ñun ñi nga xam ne itam dañoo bari ay jëf yoo xam ne daal di ay jëf yu safaanoo lool day wax sëriñ bi kat sëriñ bi maanaam bañ ñoo topp ci loolee waaye sëriñ bi kat daal di ñuy dimbale ci yërmandeem rek moom Cheikh Khadim nga ne wala fale mi ngi koy tàmbalee naan sëriñ bi ngir yàlla ak yoneen ba kat gàttandul sa gaa yi lay daba dab tey néew a néewi kàttan waaw nga yi rek maanaam mënees naa yem foofu muy dañu Sëriñ Tuubaa kat gàttalul ñi nga ne dañ lay daba dab maanaam ñi nga xam jéem a ànd ak yow yow waaye nag te kattan lool waaye ginnaaw xam ne ni sëriñ bi ku koy ñaan ci yàlla suñu borom ak yonent bi salaatu alayhi salaam dara moo mu daal di jël ñaar ñooñu kat ne sëriñ bi kat ngir ñaar ñii gàttandul sa taali bi waa nekk nag dollil ku am ba mu doyle doyle may ko amul ba kenn dooru tawat ngir yaa am lu nekk te mu ni nag képp koo xam ne am na yow kat dolli ko ba mu doy la waaw képp koo xam ne amul itam yow mbàkke na ko may waaw ngir yow kat yaa am lu nekk te mën lu nekk mu ni nag ku nekk jox ko lu dootul jee te saytu mbiram fegal ko lépp lu bon nag may ko lépp lu gën mu ni nag fu sab murit nekk yow dàqal loram ba mu dem ba xam ne waaju ko gis naa kii du waaju fi woon waaw ne yow daal fépp foo xam ne sab murit nekk na fa ak lum sori sori mbaa mu jege itam yow lépp loo xam ne ay lor la fa moom ko ba mu ba xam ne képp ku gis murid boobee sax danaan a ah, kii de xanaa du waaj ma xamoon mun ko yow daal fi dàq lor yaa fi mënal ko mënul yaa fi jagal lu fi bon yaa fi defal ko fi bon boole murid yëpp seeni aajo boole ko faj may leeni maqaama it yuy gudda gudda ki fan waaw nga ma ne mooy mooy yërmande gi ñu mboole murit yëpp seeni aajo yow sëriñ ko fajal leen ko may leen ay maxaama itam ñoom murit waaye mu mel ni loola doyul ba tey mu daal di desaat ca loola muy aajo yu murit nga xam ne daa mel ni ko yitteel la moom sëñ bay mu ne ko bu jenn aajo yu murit des mbàkke ji ba fi fajul bu muy murit ba fi yow mii mbaa murit ba fi ñun aajo yu murit yi dimbali ñu daal ba bu benn murit am aajo boo xam ne yow fajoo ko moo xam muy murit ba nga xam ne fi yow moom yi la nekk mbaa murit boo xam ne sax fi man mii sëñ Babacar Jaxate la jébal mu ne ko lu waral loolu mooy ngir fu murit nekk yaa tax muy liggéey ko daw ku nekk xam na ni man mi nekk may wax waxi fan muy ko nag Mbàkke la waral loolu mooy murit bi ak fépp foo xam ne nee na la nga xam ne moom la fa nekk mooy liggéeyal la waaw moo nee na murit bi nekk la itam dëgg mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa moo tax muy liggéey ak a moo xam ne nga xam dañoo jébbalu ca cheikh yi moo xam ne dañoo ñi xam ne dañoo jébbalu ci Sëriñ Tuubaa moo xam ne nga xam dañoo tukki ne fu sari ñooñu ñëpp nee na bi daal lay itteem dëgg mooy di liggéey ak di daw ngir jëm Seexul Xadim ne nag ku nekk xam na ni man mii li may wax lu wér la waaw naan wax waxi fen xam nga loolu ku baaxoo dégg waxi sëñ ba Jaxate dina xam ne lu bare bare da koy wax ngir dëggal li nga xam ne dakay wax ak maanaam di ko di ko gën a dëgëral mu ne ko xam ne mës naa sukk jógeeb néegam ba dikk fi yow ngir yàlla mbaa fi sa kopp sàkkul ko mbir mu yëwen ne képp koo xam ne mus naa jóge fi barab ba dikk fi yow sukk jébalu kookee kat mbàkke maanaam na nga ko sàkkul mbir moo xam ne mbir mu yëwén ne bul fàtte koo xam ne mës naa sukk jébalu bis moo xam dafay farlu mbaa muy dox di foo ko lii moom yaakaar naa mooy mooy lañ doon wax ndax nee na sëriñ Tuubaa yow bul fàtte kenn mbàkke waaw képp xam ne mës naa sukk jébalu rek ne ab murit laa bu ko fàtte moo xam nag dafay farlu mba muy dox di foo ka sàggan waaw nee moo xam mu doon ko farlu na ko mag ñi doone woon mbaa mu doon koo xam ne dafa sàggan lool di foo ni si jëm yi waaw nee na daal Mbàkke Bàll yow bul fàtte kenn waaw bul fàtte kenn ne ko ku baax a baax ak ku bon boolee la boole defar mën ngaa defee jàkk santaare ko póote gi san waaw nga xam waja toob la mu nee na ku baax ak ku bon yow boole la boole defar waaw lu waral loolu mooy yow kat mën ngaa defee santaare ki póote ki seen waaw maanaam daal eh, buñ ko doon buñ ko doon misaal mooy yow mën ngaa fekk foo xam ne ay tilim tilim la foo xam ne ay taq-taq la foo xam ne daa jaxasoo lool nga daal di koy def nag bërëb bu leer bërëb rafet bërëb boo xam ne day day day day sellu lool maanaam du amati wenn sobe ba mën a sax doon ab jàkk jàkk fan lool loolu nga fa mën a dégg ndax sën moom ak santaare fóot ñu xam nañ ay ay ay mbir yu tilima daal ay mbir yu taq la daal mbaa ay mbarit la waaw kon nga xam ne kon day wax ni Sëriñ Tuubaa daal yow lu ab barab tax tax mbaa lu nit doy waar doy waar yow mën ngaa fóot kooka ba mu set wecc wecc yow loolu lu daal xew mu daal jël nag ab métaphore ci loolu ne ko kat ndox gaa ngi laabali jën yàqul ndoxam gi ba tey teg dex nga laabal ñu kon nit dex di laabali jën mu ni li waral loolu mooy gis nga kat ndox maa ngi nii di laabal jën yi nga xam ne ñoo nekk fa moom te yàqul ndoxam gi ba tey neena kat ndox mi manam ah, ci misal geej gi jeen yi nga xamne ñoo nekk ci biir manam dañuy set wecc ngir ndox mi mo leen laabal waaye teewul geej gi moom dara yàqul fa moom waaw moo tax mu ne ko yow nag sëriñ bi yow ab dex nga laabal ñu ni dex di laabal jeen yi nga xamne ñoo nekk fa biiram mu de mu daal di koy tëjee nag ne samay wax ak waxi mbooleem waajudul mën a ngi sarax ñu ngën ji kàttan ngir am na ngën ji kàttan waaw ne ko samay wax daal mi ngi nii képp ku dul man itam ay waxam lii la mooy yow daal Serigne Touba nag ñu dimbali yow daal Serigne Touba sax mbaax moom mën naa fekk suñu bon yow daal Serigne Touba ñuy baax ak ñuy bon yow nañu yaakaar ta ak tamit moo tax mu ne ko nag sarax ñu ngën ji kàttan waaw kon yàlla nañu Cheikh Khadim defal loolee te nangu ñaan yi mu ñaan bu wér te rafet nañ def bu wér ne Serigne Touba nangu na ko ndax moom Serigne Touba daaw ko gànt mukk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala o barakaatu